yàlla yàlla nañ ci yàlla aar rek mais kenn mënu cee mucc bool wax dëgg yàlla li nga xam ne xamoo nu muy ñëwee ak kañ lay ñëw parce que dëkk ah, ah, sama tuwaay rek ñu def sama tuwaay booy a la tëj nañ tëj booy xam ngeen luy dëgg ngeen tëj jumaa yi ñu dëj jumaa dëj église yi boole pour suñu bien la ñun ñëpp donc loolu du débat quoi wax dëgg yàlla jarul ñuy débat ci loolu quoi. il faut que ñu xam ne lii nii ah kenn mënu ci mucc. bu dee nañ te nañ tëjee quoi. xam ah, nga luy pandémie. waaw loolu mooy yoon. xam nga luy pandémie booy. mënu ci xam kenn mënu cee mucc. eh bii bi waaye bii bi kañ nga ñëw gaañ. luy pandémie rek nga xam luy pandémie. eh saa. sama gars sama gars nu mu demee nii gars bay bay dama ñëw bay bay taw nii gars bay bay taw nga taw bi gars salaamaaleykum askan bi ñun ñoo doon def vidéo bi ni pour sensibiliser askanu Sénégal di ñaan yàlla ngala képp ki nga xam ne sentir nga sa yaram ni am nga doomu jàng te nga nekk bitim réew ngala toogal fi nga nekk ba nga wér mu nekk bitim réew ak nekk biir réew yonent bee ko jàngal képp foo nekk balaa am fa toog fa boo fa demul bu fa dem ngir yàlla bu ñu lorante suñu biir te ñoo ngi lorante suñu biir maa ngi ñaan yàlla ngala yàlla musal ñu si musiba bi wàcc suñu kaw nii jërë ngeen jëf bonjour bonsoir tout le monde comme Moi, surtout, je m'étais à ce qu'on s'abstient, à, à, ce qu'on surtout. Hein. Le lavage surtout avec euh, de l'eau, de javel, du savon, et surtout avec euh, les ailes antiseptiques. Et surtout aussi, euh, se méfier du contrefaçon. Voilà, merci. maa ngi ziar ñëpp góor jigéen mag ak ndaw te tamit di leen euh, fàttali ne nañ saabu ko almuɓe allah waddi en enen fof eɗen mbawi wawde wallodirde e mabɓe surtout dokken ɓe kadi ko gandanɗa ɓe mbawa daɗorde hen pour sababu no ñawmo allah addani en o te kadi eɗen ñaago allah kadi allah jippinan enen foof allah ittanen ɗum saabu ndox eau loolu daa baax si feebar loolu moo tax ñu mucc ci quoi salaam voilà comme ni ko gars yi waxee donc lépp luy matukaay rek buñ ko fàtte gel yi aussi surtout que ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax parce que jamono ji ba façon bu ne ñu ngi koy gis képp kuy jënd ñu ngi lay ñaan boo mënee dem ci pharmacie yi wala supermarché yi parce que contrefaçon yi mi ngi fii du jeex donc distance bi aussi am na si solo entre copains su ngeen toogee bàyyi leen distance parents yi aussi ñu leen di wax nañu jàppale njaboot gi bu baax a baax a baax que ñoom kenn mënu leen contrôler donc tey ñoom ñoo leen mën a téye ci kër gi parce que xale bu génnee rek génn na xamoo lan la mën a def ci biti wasalaam. surtout on compte. le